coordination yàlla def at moomu ba ngeen ñëwee ma jox leen drapo bi daldi leen jox aussi ay yëbbanti mooy football bu rafet am na solo lool waaye amul njëriñ toog tey jii d'ailleurs ñu ngi jaale maa ngi signé léegi benn lettre de condoléance jëmale ko ci chancelier bu Allemagne ginnaaw bi Frank Beckenbauer wàccee liggéey ñaan yàlla mu xare ko mu footballeur bu xarañoon amoon fulla nekkoon libéro bu dëgër moom ak Gerd 1974 génération boobu ak ñi toppoon ci ñoom ñoom un day wane nit ki fi nga nekk di liggéey fonk ngeen ko ndax un ko kon 2022 doo gagné Coupe d'Afrique de Nations xeetu footballeur bu ne am nañ ko Sénégal waaye nag seen xarañ yéen la yàlla may ngeen may ñu pour la première fois dans notre histoire la coupe d' Afrique des Nations ba tey équipe boo leen di dajal du nelaw di xalaat fu may jaar wala nu ma si muccee pour génn honorablement kon nag bu leen yërëm affaire yi bu football bi neex ba ngeen naan non c' est assuré amul assuré da ngeen di dugal but yu bare

kon un da ngeen modèle pour le peuple sénégalais li ci des nee état bi dina liggéey ak fédération bi niñ nous ko défé bobalé résultat c'est le fruit d'une politique et d'une collaboration fructueuse entre le gouvernement et la fédération et puis ñu may len temps ñu liggéey ñu may entraîneur bi temps mu liggéey parce qu'on ne peut rien faire dans la précipitation parce avant le xewoon dañu dem match ñu perte on renvoie toute l'équipe, on renvoie l'entraîneur, entraîneur at c'était quand même premier ministre mais dañu dàq président fédération la fédération. ko mais dañ na ko rek nous njëkk si ñu nga dem parce que vraiment mon fi toog entraîneur bi non. dàq ko coupé contrat ba dàq tout le monde loolu mënuñ si liggéey lu lu lu lu am donc on a été patient, on a construit une équipe aujourd'hui qui a fait ses preuves, qui est la mère d'Afrique. Donc elle doit juste confirmer ce titre. Si vous ko defee un Jan Wachino, na bu leen coupe d'Afrique Vous xëy na dinañ taxaw waaye génération mais vous votre génération votre génération aura fait en tout cas aura assumé son rôle historique kon nous, naa ku def lu rëy am lu rëy am na lu ñu waxtaanee déjà ak yéen ak fédération ak ministère waaye nag nee naa boo leen ñu indilee coupe moom da ngeen am raaya boo xam ne ak neexal boo xam ne bu mucc ayib lay duñ ko duñ ko fi wax nag dañuy xaar ba ngeen dellu si ñu dajawaat fii incha allah féetewaat ko sargal leen kañ leen kon loolu mooy yóbbal bi boo leen demee xam leen ne peuple bi yëpp a ngi seen ginnaaw c'est un jeu collectif un jeu offensif efficace qui marque des buts parce que ku marqué bi bii mënoo dem final mënoo gagné ko il faut bien défendre mais il faut marquer donc euh, el tactico loolu nag xam naa jox nga leen yóbbal yi war Khalidou va bien défendre les camps avec ses gardiens mais le milieu et l'attaque ci kanam jërë ngeen jëf yal na leen yàlla jàppale may leen ndam. voilà